tomb bi nga xam ne moom la mbokk taalibe yi tànn ngir ñu waxtaan ci ak ñoom fàttalante ci ñu di ko wax al muridiya fi l wada zahin jàpp naa ni tomb la boo xam ne tomb bu sensible la ngir waxtu woo jekkee ngir fas yéene waxtaan na ngay séentu ay xeer yoo xam ne daañu la ko sar danga koy séentu bu baax bu fekkente ne bëgg nga caa waxtaane na mu demee dëgg dëgg dana am ñoo xam ne daañ la joxoñ ne ah ki de amu ci teg yi dana am ñu ne ku ñàkk kersa la dana am sax ñu ne amutu taalib te yooyu man jàpp naa ne mooy yi gën a woyof ci yi nga xam ne mu ngi néggandiku ci waxtaane murit gi ni ñu koy dund tey jii waaye nag fexe ba bañ a bëgg ci ki lay tagg wala ngay mer ci ki lay ñaan te lépp nga jiital ci bëggu sëriñ bi loolu rek mooy li ci am solo kon daal bu fekkente ne am na benn wala lenn loo xam ne ñu ngi ko ci séentu ci luy tegtale mbégte wala loo xam ne luy sedd suñu xol la mooy ñu tasee seen ngërëmu Sëriñ Tuubaa waaye du doon tagg wala nit di tagg wala ŋàññi guñ lay ŋàññi yooyu nag du ci ñàkk ndax tomb bi ñu bëgg a waxtaane day tomb boo xam ne ku diglu rek da nga dégg loo xam ne faaw nga jàpp ne yaa ko moom da gis ku jàpp ne moom ngay joxoñ baaraam waaye nag ñu seetaat ci suñu bopp rek niituwaat jàppe ko seetu boo jàkkaarloog moom di xool loo gis sa jëmm sa neexu la bul yedd seetu bi waaye yeddal sa bopp kon nag lu ñu gis ci suñuy jëmmu rek wala ñu gis ko ci biir gëstu bi ci loo xam ne du la gën ci ñun nañ seetaat suñu bopp waaye buñ tuumaal mukk sëriñ beeg ab liggéey ngir waxtaane loolu nag day indi nub sa bu gàtt ci li Sëriñ Tuubaa tërale yoon wi bala ñoo agsi ci ni ñu koy dunde tey ndax ñaari mbir boo ci bëggee wax maanaam boo bëggee wax ci ni ñu dunde yoonu rek kiy dégg te xamul li sëriñ bi tërale woon yoon wi kooku waxtaan du am ci moom solo dëgg-dëgg waaye nag nañ xam tuuti rek ci li sëriñ bi tërale woon par rapport ak li ñu dund tey sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu moom benn mission la amoon ci kaw suuf muy génn nit ñi ci lëndëmu kéefër yóbbu leen ci leeru xam-xam te loolu moo doonoon rôle bi alquran dikkewoon القران سونو بروم دافا واخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لولو رك مو تاكون سيري بي ген نيت ني تي لندم كيفر دوجال لين تي لير نغم يالا سيري بي بي مو ديكي لولو مو نيكون ميسيون دي لابال نيت ني تي خيت مو يالا ييب نك لپ لو نيهوت يالا bu fa yéene laabal doomu aadama yi ba duñ ko jege fenn waaye ci anamu mu doon jëfandikoo li ñuy wax tarbiya ruuxiya mu yar ruu sellal ba nit ki mën a am kàttan ci yanu secret sunu borom subhanahu wa taala tarbiya ruuxiya nag foofu la problème bi nekk foofu la léegi-léegi tomb bi ñuy waxtaane nekk ndax ku ne xam ne ni mënta am ci lu dul ñaar muy alquran ak sunna tarbiya ruuxiya buñ koy wax alquran ak sunna képp ñoo koy def waaye leneen du ko def loolu nag mën nañoo def istishhad ci ay abyaat yoo xam ne sëriñ bi indi na ko te bokkoon ca ya nga xam ne daana ci yar njaboot bi dénk ko ñi ñëw ginnaawam ngir ne buñ ci saxee lam doon def ca mag ña dam nekk ci ñoom ndax defar taxoo lañu wax loolu la waxoon sëñ Balla Fali Jën defar taxoo waaye nag bi mu demee ba nga xam jamono dana ñëw sëriñ bi doon defare dana am ñu dikk duñ ko fi fekk defar na ñooñ dana danañ mën a defar ñi ñëw ginnaawam waaye bàyyi na fi loolu muy ay ndénkaan ay orientation yoo xam ne ku ci jaar da nga defar loolee la ci jiitoon mooy alquran ak sunna alquran ak sunna ak lépp loo xam ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci it sëriñ bi daana digle ne nañ ca sax daana wax ne duumu ala sunnati wal ijmaai baada kitaabillahi bi ijtimaai da ngeen sax ci sunna ku ne xam na ni borom xam-xam yi dañoo bari ay ay wute bari ay gis-gis bari ay jéggin ci yu bari mu ne nag lépp luñ dem ba dëppoo ci na ngeen jàpp loole waaye nag ginnaaw bu ñuy jiitale alquran baada kitaabillahi bi ijmaa sunna moom yi mu njëkk a tudd ah, ne ko borom xam-xam yi di taarife ku ne xam na ni day delluwaat ci wax waxi ci bi ak ay jëfam ak ay melokaan kon boo tënkoo ci ni mu wax di ko roy ca lam doon jëf loolu mooy dëgg-dëgg sunna sëriñ bi wax na nag képp ku ko wan ginnaaw nga xam ne royo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak koo mën a doon yaa ngi ci ak waru tey yemul ne yaa ngi ci ak waru waaye nee na da nga tasee mbugalum suñu borom subhanahu wa taala man lam yakun bi rasulillahi muqtadiyan fi diinihi fa huwa maghrurun yara niqama kooku ku waru la tey dana tasee ndigal mbugalum yàlla yàlla nañ ci yàlla musal buy seetee zaahiru ñaari bay bi seen maana liñ ci déggee mooy képp ku wuteeg sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuteeg alquran kooku rékkeeku na ci sharia kooku mi ngi dox ci yoonu alkade te kooku yellut ci moom muy wootewu ne dafa askanu ci cheikhul xadim yellut ci moom muy wax ne am murid la ku rékkeeku ci lislaam di dox ci yoonu alkane wan ginnaaw alquran ak sunna kooku yellu ci moom te jaaduwut daganut rafetut muy wax li ab murid ndax sëriñ bi dangay ngay mu wax ni waxtu woo wàccee sariya rek yaa ci yoonu alkane bul wàcc mukk sariya ndax loolu prétexte la boo xam ne daf lay yóbbu ci alkane wala iyaasu billah wala takun mumtalika shariati mumtalika sharia fa nadduha ila rada daria bul wàcc mukk sharia ndax wàcc li da lay yóbbu ci alkane ngir sensible ci tomb bi sensible bi may wax ci njëlbeen bi gis nga bayit yi maa ngi mas a am ak ab jataay kenn ci ñi nga xam ne daañu dugg ci biir waxtaan wi danañ ci gis seen bopp incha allah mooy ñi nga xam ne ñoom lañ topp muy lenn ci ñi nga xam ne lenn ci borom mbooloo yi masalan yoo xam ne daal borom mbooloo la waaye du ko tudde kilifa du ma ko tudde kilifa ngir kàddu yi ma dégg mu génn ko ci gémmiñam ñu am jataay jataay bi xëy na am na lu ko ci neexul lu jar détail am na daal lu ko naqare ci man mel na ni xamul nu mu koy saafara mu daal di wiiri fi nga xam ne fi la ñu bari lu wiiri ci bëgg maa tuumaal loolu ñu tuumaal ñu bari di wax ne dañ ay murit mu daal di jékki-jékki ne ma ah charia am solo waaye nañ ko teg fële te jàpp ci li Sëriñ Tuubaa indi ma ruus na am gàcce ma ne ko ah man de xamuma lu fi sëriñ bi indi lu dul charia ak xaqiqa te bu fekkoonte ne am na lu mu fi indi lu dul charia ak xaqiqa yi man sari alay jàpp ndax mom la ne mo won boko wacce yang ci yoonu alkali dali ko indi bi wala takun muntalika sharia fa nafsuha ila rabbil alamin legis ne kooku kenn la ci ñu bëgg waxtane di kenn ci ñu bari nak kenn ci ñu bari suritu ba ana ñu fi indi lu sharia xatte bu wacce sharia xatte ana ci lu ñu jàpp bu fekkoon ne am na leneen lu indi it day ngir jëfe ndigalam rek bu fekkente ne dañuy dabu ngërëmam duñ ko wàcc ndax nee na ku ko wàcc yaa ngi ci yoonu algan loolu nag moo waral ñu bëgg a tënk tuuti ci doxinam mu sell woon walla ba nga xam ne umpul kenn ci kaw suuf ni borom xam-xam ba waxee woon ni inil xaq la yaxfa ala si basiratin dëgg moom képp ku am gis ci si xol rek du du du làq ci yow waaye doxin cheikhul xadim radiallahu anhu ci sall ya ak da ko bu kenn doxinam woowu nak tambule ko ci yene yu reuy yu mag yam am ci digganteem ak boromam dom yam daan genni ak comportement bam amone ak i da fay yagul yàgg gu te li ci upp mi ngi ci biir téré yi lenn li ñu ngi ci dënni gor yi nga xam ne suñu bee leen yaroon ñu sottiwaat ko ci seeni sët ak seeni doom ñu di ko nekk li ba fi ñu toog ginnaaw la dale ca sunu maam aadam ba fii ñu toll la ñuy mën a nekk li di ko jële ci biir téere yi ngan la waay dund goo xam ne matagul ñaar téeméeri at tam jamonoonte woon ak ay cadre ay kàngam yoo xam ne ñu doon saytu dundam ga di ko def ci biir téere yi di ko toppatoo loolu raafagul raaf bu jar nag ñu bëgg koo wan ginnaaw di dund leneen lu wuute ak loolu sëriñ bi moo waxal boppam ne jaamub yàlla la liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la loolu képp nag mooy li am solo kon nit ki mënta rëy wala mu am daraja wala mu am garaat bu fiite kaw garaatu doon jaamu yàlla nit ki mënta màgg mag ba am lu upp ci mom solo doon liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi nak doon nako ko boromam subhanahu wa taala mu wax ni washhadni al yawma bi kawni abdika xadimahu inda jamii jundika mi ngi seereel yàlla ni jaamu bi yàlla la te liggéeykatu yonente bi la alayhi salaatu wassalaam kon loolu moo doonoon moo doonoon jëmmi cheikhul xadim radiallahu anhu yoon wi daf ko tëraloon rek ci ñett ndax waxoon na ni falyalaman kullu zakiyin wa balid an alladi yuxaalifu alxaqa tariq والحق بل العبد بالتوحيد والفقه عن تصوف المجيد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجنه وتلك الجنه كيف كوي برامم خير كيف كوي برامم ياو نا خامن كو ووتك دغ ديسنا لا داك انا لوي داك لي دال ابليس دا جامو يالا بو جيغي يالا خي بن بيس جيف لو تخ يالا جيني كو سي جامو ньоني جيني كو سي يرمدي سيرين بي نانا كو ووتك دغ نك dees na la génne yërmande yàlla wax ne lan moy dëgg nak moy jaam bi ay mbirum mu tambalé ko ci tawhid fiq tasawuf masalan daf ko leral ci weneen bayru gëna leral ngir ne muridismu ci loolu la ko tabax istabtada murid bi tawhid wal fiqh an tasawuf al majid muntahijan mashab ahli sunna ma al jamaat al najamiyyah kon murid bi jéegoom bu jëkkam mo war don tawhid taxsilu saalihi min at-tawhid jéegoom ñaareelam mooy mu am yubbal mu doy ci fiqhul islaam yi jéegoom ñetteelam mooy ak tasawuf fexe ba dëggal kon loolu ci la sëriñ bi tabax liggéey bu mag bii mu liggéey mu mel ni nag moom bi mu koy tabax kenn la di kenn koo xam ne buñ fa bay jëmmam jë ci jamono booba def ko roy téef mu mat sëkk roy ci waaye guddi yi ñu toll day mel ne jëm dafa limu jëmmam jooju dafa limu ay Sayxul Xadiim yu bare bare bare bare ñoo nekk ci dëkk bi jëmmam ji dafa limu ba mu koy liggéey kenn na waaye léegi dafa limu lu tax mu ne dafa limu mooy lépp ci njaboot gi kenn ku nekk dangaa ngaa jàpp ne yaay sëy da ngaa jàpp ne moom yaay sëy ni nga jàppee ne yaay sëriñ bi mooy boo doon seere sax tey taalibeeg nit doo delluwaat ci nattukaay yi nga xam ne moom la sëriñ bi di natt ak taalibe waaye da ngay delluwaat ci relation bi mu am ak yow su fekkee daal waa ji ñëw na su mi la mbaxana mi su jóotal la jox la war ma yëkkati la ma am jox la nga seere ne taalibe kiire gi nii même bu la xañee loolu te li sëriñ bi digle moom jamono ji nekk yaa ngi ci séenit nga ne du taalibe kon léegi manam considération biñu jox ab mourid kenn ku nekk yaa ngi koy natt ci léegi daal jàpp ne yow yaay sëriñ yaay sëriñ bi loolu nag du nattukaay bi nattukaay bi mooy li sëriñ bi tëral ne lii mooy yoon wi lii mooy melokaan mourid sadiq saadiq foofu la ñuy natt ab murit kon nañ ko jéem a roy moom sëriñ bi xëñtu ay jeexitam te ay jeexitam mooy asiraat al mustaqim moom la rëddoon jaar ca jaarale ca njaboot ga te mooy mag ñi yaroon loolu bu ma doon tënk yoonu murid damay wax ne doy na sëkk ñu xam le ni ci loolu rek la sëriñ bi doon dund moo ñu njëkk ñi guddi yi ñu toll nag buñ bëggee wax ci niñ koy dundee am na kenn ci doomi dëkk bi kenn ci doomi dëkk bi di Daarul Muxti Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla na ko yàlla doole ay leer def na dina bu gàtt boo xam ne am na ay laaj yu ci indi laaj yooyu faaw ñu jaar ci Cheikh Mahamadul murtada moomu laajam bi laaj yu am solo la ndax ci téeréem bi def na al muridiya fi lwaqia fi lxaqiqa fi lwaqia fi lmustaqbal lu ci nekk indi na ko waaye lam tënk nag ci fi lwaqia ay laaj yu am solo la yoo xam ne tontu ya lu ruslu la laajam yooyu bokkoon na ca ndax ñun ñi ngi wuyu wooteeb sëriñ bi ndax wuyu si nañ wooteeb sëriñ bi sëriñ bi wootee ndax wuyu si ko laaj boobu bu ñu àggee ci biir détails yi daañu gis ne wuyu gi des na wala li ëpp ci ñun wuyu wuyu sëriñ bi ci wooteem ndax wuyu gi du ne rek nga ne am murit laa déedéet da nga koy wuyu si ci lim joxoñoon nga topp joxoñ ba fi mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk lim doon dund doon ca yere nga di ko jéem a dund loolu mooy wuyu ci woteeb sëriñ bi loolu nag guddi yi ñu toll du ma ne wuyu wuñ ko am nañu ca ne waaye nag li ëpp ci ñun wuyu wuñ wote boobu laaju ñaareelam mu ne ndax ñun ñi ngi jëfe ndigalul sëriñ bi li mu digle ci jëf mbaar li mu digle ci ragal yàlla li mu digle ci jaamu yàlla te tënk ko ci njubug alquran ak sunna loola bu ñu seetee tontoom daal gis ne wax dëgg yàlla bu ñu ci ak birru wa taqwa am na rek ñeen na ko am na nag ñu ca nekk waaye li ëpp ci ñun nekkatuñ ci kon njariñul waxtaan bi mooy ñooñee ca nekkut gis ci seen bopp fas yéenee delluwaat ci woote sëriñ bi jëfewaat ay ndigalam loolu lañ soxla ci ñoom bokk na ci ay laajam mu ne ñun jëf yu baax yi sëriñ bi daan dénk di ñu ko digal ndax jëf yooyee ñu ngi koy jëf jëf yi sëriñ bi daan jëf daan ci yar taalibe yu njëkk ya ñu daan ko jëfe ci al amalu saaliha ndax ñu ña nga ca wala loolu it am laaj la boo xam ne bu ca ñenn nekkee lépp ñu nekku ci ba ci ëpp solo nag la war bu di toll mooy la mu laaj ñu ngi koy mbubboo di dund loo xam ne sorente na tasawuf mi ngi mel ne penk ak sow lañ nekk ak fa tasawuf nekk mi ngi mel ne penk ak sow loolu moo tax dana yóbbaale laajal bi mu laaj ci ne activités yi nga xam ne ci lañu jamono yi ñu toll di joññoon tey moom ba noppi jàpp ne mooy tasawuf ndax mooy tasawuf wala lan mooy li nga xam ne moo dëppoo dégg gi Sëriñ Tuubaa amoon ba xam ne ko ci tasawuf mooy lan dëgg-dëgg taarif bi sëriñ bi defoon ci tasawuf mooy lan dëgg-dëgg su boobaa daan xam kon par rapport ak li ñuy dund te jàpp ko tasawuf ak ni ñu ko dégg fan lañ toll ci roy njàngale Sëriñ Tuubaa fan lañ toll ci roy am njàngale loolu am laaj ndax jëfam yi doon jëf doon ca dox jaarale ca njaboot ba ñun ña jaar te yoon waaye wala déet loolu ba tey ci kes ñu doon kes ñu ne yooyu yi nag ay laajte yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha ci téeréem boobu dafa wax ni ay question la yoo xam ne bu ñu demee ci ëttu yoonu mu rek dañ ko ci fekk muy wëndeer ñu war koo tontu ay laaj la yu am solo ci biir téere bi maa ngi koy junj di wax ne bu ñu gëstoo ñun position bi ñu am suñu diggante ak jàng ak jàngale dañuy gis ne ñu ëpp ci murid yi dañoo soos xam-xam dañ ko soos baatu wolof la mag ñi dañuy wax ne boo fabee sow fas di ko wëgg ndox mi nga teg di ko ci wëgg xeeñ loo xam ne fas yu bëgg ko mu ñëw ba fóon ndox mi wan ko ginnaaw loolu la wax soos dafa ñëw ba gis ko wan ko ginnaaw soxlawu ñun dañoo ñëw ba gis xam-xam sëriñ ko wan ñu ko ñu jàkkaarloo moom gis lañ ci jëf nam ci mérite ñu woon mag ñam doon yar lañ ci doon jëf ñu ne ko fa ñu ko wan ko ginnaaw ko wanee ginnaaw nag di déjjatu ci ëg réer nekk ci réer bu tar bi ci dox am ci ñun ñoo xam ne dañoo jort ne xam-xam moom du lu du lu war a yitteel sax nag am murid am murid am na leneen lu ko war a gën a yitteel ci xam-xam loolu la yaakaar naa moom buñ delloo ci kàddu discours yi nga xam ne dañuy dañuy faral di wax ne ak taalib rek am solo ak taalib rek am solo di baamu discours yooyu yoo xam ne ak taalib am solo sëriñ bi rek a fi nekk yooyu ay wax la yoo xam ne yaram di wax kalimatu xaq yi ramu biha al batil da ci tar leneen nga gis koo xam ne da koy wax waaye donte li ñuy wax dëgg la ak taalib mooy li am solo sëriñ rek moo fi nekk waaye moom loolu taxu koy wax moom daal am na lu manqué loolee mu manqué nag bëgg naa ko ñuy wontoo ko ba kenn du xam loolee mu manqué mooy dafa waroon a jàngi jëfe xam-xamam ni ko sëriñ bi diglé yàlla dogal def ñu ci loolee lenn mu bëgg fa mëna tek na teg ko ci kanamam di ci gën bëgg mën bis ak tali bi mom ñu wax légui moy da mënta am ak tali bi ci boppam dafa mënta am lu dul ne da koy tabax ci kaw xam-xam buñ dikkee ci joxe misal ci mag ñu yoroon sëriñ bi daañu gis ne meloon ci moom ak ñu fexe woon ñoom par rapport ak ñi nga xam ne sunu njàng demul fenn waaye gis ni ñu mag ñu suti woon ci pas-pas ñu suti woon ci xam-xam ñu suti woon ci pas-pas ci seen diggante sëriñ kon ak taalibe bi ngir mu dëgër dëgg dëgg dëgg dëgg jàpp naa ne faaw day tëdd day tëdd ci kaw xam-xam ci li sëriñ bi waxee ne mi ngi tabax ab liggéeyam ci islam taw tawhid islam muy muy iman islam ihsan ñett yooyu ci la ak taalibe tabax mu mel ni ñi jàpp xam-xam amul solo ci ñun dañoo gis ne ñoom xam-xam daal am nañu ñu ko war a jàng waaye mooy sëriñ si waaye ñun taalibe yi moom soxaluñu mu ne ah kay dëgg la sax sëriñ si war nañ koo jàngi ndax ñoom dañoo war a yaatu suñu xam-xam ngir lan comme que ñoom dañ leen a topp yaakaar ne ñoom dañoo am ay responsabilité yu rëy war nañoo àgg ci xam-xam ca ndeyoo ba waaye nag lii di xam atte sharia mooy atte sharia te mooy iman nga xam mooy lan ñu ne al iman mooy nga gëm yàlla gëm bis pénc yi gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm dogalam ñu ne la lan mooy gëm yàlla nga leeral melokaan ya ilmul kalaam lan mooy gëm malaayika yi nga leeral seen awsaaf ya ak ya jomb ci ñoom ak ya jaadu ci ñoom ba iman jeex nga ñëw ci islaam gëm na islaam suñu borom mi ngi ko tabax ci juróomi ponk baati seere yi julli génne asaka woor weer ko aj màkk lan muy julli nga leeral ko balaa am laa may am leeral laab lañ ko war a defee ak nañ koy defee ñëw ci julli leeral ay farataam ak ay sunnaam ak yee koy yàq ba ponk yi islam jeex nga ñëw ci ihsan deme ko noonu ñu ko waxee ci ne an taabudallaha ka annaka taraa in lam takun taraahu fa innahu yarak yooyu moom dafa war bépp julli xam loolu dafa war bépp jullit war koo xam ne fardu ayn la waaye dafa ko fay jullit bu nekk war naa xam ñett yooyu xam lu leer nañ ngir maanaam nag nekkee ci kaw suuf li tax yàlla indi ko fi te mooy al ibaada loolu xam ne bu am solo boo xam ne sëriñ Mahamadou Moustapha Mbacké ibnu sëriñ Fati Fall ndeysaan yal na ko yàlla doon ay leer wala muy téere bi na ko ci fekk te yaakaar naa téere ba yàgg na téere ba du tay boo demee ci waa um nadim bu Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana ngir dëggal lii mu indi moom wane ni jàngi ba xam say farata dafa war bépp jullit rawatina bépp murit dañu fekk ne Sëriñ Tuubaa foofu man ngi fay joxe ay ndénkaan ci loolu ba na ko wëlbatiku ne man nag ni ma leen ko dénke ne ngeen ko xamlu ji danaa leen warlul lépp lu ca aju danaa ko taarif jox leen ko ngir di ko jàng lam warlu woon it def na ko la def kay mooy lam ñu digaloon ñun ñu war koo def foofu la des def na waaye lu moom lam warlu woon boo demee ci irwaa uma bi xaw naa gudd waaye li ma ci gën a soxal mooy la wax ne fa inni amartu kulla man taallaqa biya li wajhi llahi taala al karim بتعليم العقائد والتوحيد واحكام التهاره والصلاه والصيام وغيرها من كل ما يجب على الفرد. وعمل واني تكلفت لكم ولكن بتواليف فيها جميع ذلك لوجه الله تعالى الكريم. كيف بقى شيء ما جيجلنا؟ نجاني عقيده من فصفص. جاني توحيد نمي ويتل يلا. جاني اكيلات الجلي اغوار كما الاسلام. lépp loo xam ne dafa war a mu kànn digal naa képp ku ne ci man la aji na ko jàng man nag gàddul naa leen ko waaye defal leen ay taalif yoo xam ne lépp dafay nekk te dama ngir jëmm yàlla sëriñ bi nag def na ko ngir jëmm yàlla nam ko gàddoo woon kon ni mu ñu ko digale tam ñu ne ñun nag nañ fexee ba suñu warteef yooyu ñu joxe ko ngir jëmm yàlla sëriñ bi noonu mu doon yare ci xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey daf ko daan soppaloo mag ñi jamono ju nekk bis bu yàlla sàkk daf leen daan soppaloo ñu yóbbulu ci xam-xam lu leen mën a amal njariñ boole ko di ko jëfe nag moom ci jëmmi boppam ci loolu la nekkoon bis bu set mu yóbbulu ci xam-xam loo xam ne di koy jëfe doon ci yar njaboot ga boole ko daan leen waar di leen teg ci yoon li wax irshaad defoon gindi jaam yàlla yi mu nekk métier dem ba mu soog ko nag mu tànn ci biir ñooñu mu doon yar ay kàngam yoo xam ne ñu ñu ñu fës lañ ci xam-xam waaye ñu fës lañ ci jëfe seen xam-xam waaye ñu fës lañ ci sellal mu samp leen ci ay barab nag jox leen mission yooyu ñu di ko wéy loolu buñ ci doon delluwaat da nga gis ku mel ne sëriñ daam abdourahman bi bi sëriñ bi jaar ak moom ak ni ko sampe woon mu doon jàngale alquran kon moom ci jàng jàngale la nekkoon ba ñuy mujjee borom borom pàkk bii ñu toog di borom daaru moxsi ku ne xam ne ci sëriñ Tuubaa jaar moom waaye moom la sampoon mu daan jàngale xam-xam mission boobu moo ko yor waaye ci biir ñu yaroon nag bari woon na lool ay cadre donte am na ci ñoo xam ne sax sëriñ bi sëmp leen woon ngir yor mission bu mel noonu boo demee seeni kër mën nga fa fekk yor ay daara di jàngale waaye bari na ci ñoom ay cadre yoo xam ne ku mel ne sëriñ Mbàkke Buso ku mel na ki ñu daan woowe sultaanul aarifin sëriñ Ibrahima Jóob ñëpp bu ñu dëkk sëriñ bi am na ci ñoo xam ne dañoo indaale sëriñ njàng waaye am na ci ñoo xam ne ci ron sëriñ bi lañ jàngee liy jàng ñooñu nag ñoo encadré wu sëriñ bi doon ñu ko mat sëkk nga xam ne seen xam yi lay jubloo indi waaye dañoo àggoon ca dayoo xam-xam ba noppi nag doon ko jëfi ba noppi seeni fas ak seen diggante sëriñ bi kenn damu ci loolu tax muy joxe ci même misaal doon ci am nañu nekkoon sëriñ bi ñoo xam ne amuñu woon am njàng waaye li ñuy doyee am njàng sëriñ bi daanaka def ci ñoom ci ay toog li ñuy doyee am njàng ndax raayatul ayn dañuy wax ne mooy al amal jëf yooyu nag sëriñ bi daana jël ñu nga xam ne amuñu woon am jàng bi ñuy ñëw ci moom te doon ay mag mu mel ni jàng dem jàngi weesu na ci ñoom sëriñ bi leen jàngal ci ay tomb di leen wan ñuy jëfi tomb yooyu ba àgg ci seen comportement boo ko gisee doo ko xam ne ak ñi nga xam ne bi ñuy ñëw dañu indaale leen njàngum fekk dem loolu sëriñ bi doon yare ñoom ngir ma njëkkante waxtu kon damay daal di tàbbi ci dëgg-dëgg liñ bëgg a waxtaane muy almuridiyya fil wada rahim actuellement nii ni ñu dunde ak murid loolu dana ma yóbbu ci ma séddale ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ma séddale suñu bopp ñetti xaaj am na ci xaaj boo xam ne nag mën nañ leen a yéegal ci ñu sëriñ yaroon am ci xaaj boo xam ne agguñ ci ñoom waaye am ci xaaj boo xam ne nag dafa mel ne ñoom ñoo jàpp seen bopp ay murit waaye ci dëgg-dëgg bu ñu ko xoolee bu ñu ay murit ngir delluwaat ci sëriñ bi daan wooye al mutaalliquna bi waaye aju ñu aju ci moom ay xeet la ñëwul murit waaye ñu aju ci moo de xamal ne kon am na dañ ñoo xam ne jàpp nañu ñi ngi aju ci sëriñ bi waaye ci dëgg-dëgg nag bokkuñ ci wàllu sëriñ am na ci kuréel boo xam ne mën na leen a jàpp ay murit waaye nag melokaan yi ñu amee ak comportement yi ñu yor ak yi ñuy dund ak xalaat yi ñu am la sëriñ bi doon séntu ci ñoom ëpp na lool ëpp na lool ndax kuréel boobu da nga fekk ñaari bu nangoo liggéey liggéey moom dañ ko boole seen programme te ku ne xam ne ne sëriñ bi al amalu talabul xalaal kasbul xalaal daf koo jàngale bu fees dell ci biir téere kon nag soo demee ba nangu woo nag ca dëgg-dëgg bi da sëriñ bi doon séntu ci ëpp na loolu ñaareel ba ñooñu léeg-léeg gis xam ne ci benn kuréel bi may wax nii dañ ci gis ñoo xam ne la ñuy bëgg a justifier seen ñàkk liggéey googu mooy dañuy wane ne ñoom ay drus kati xasida yi daal dañuy yor xasida yi di ko drus jamono ju nekk guddeeg bëccëg yor ay jukki yu mag di jàng rek di jàng rek loolu lu mu baax baax sëriñ bi séntu woon na ci ñoom lu ëpp loolu te léeg-léeg ñooñu li ci gën ëpp dañuy tóngu alquran alquran dañ koy woon ginnaaw boo toogee seen jotaay yi seen jotaay yi jotaay yi biir yi da ngay dégg ñu wax loo xam daal am na maa ci xasida am soxla ci leneen dëgg la xasida baax na waaye sëriñ bi moom alquran nii dala ko joxoñoon ne lan bu fekkente ne ab murid nga dee ko saxoo jàng bis sëpp dem ba wutal ci sax ne walaw salaasatan min ahsan ba mu te nekk kon nag waxtu woo ko tongee man bu fekkee dana ab murid daal la jàppee jàpp naa ni benn tànk ngay wax da war a boole alquran ak xasida da leen war a boole ndax sëriñ bi moo ko digal lii sëriñ bi moo ko liggéey sa jàng ko dana la suuxat waaye alquran mi waxi yàlla sëriñ bi daf koo fonkonte nee na lu am ci la fa amee même liggéey bu màgg bii nga xam ne dafa xeexi woon ak noonu ba gañe leen nee na alquran ci la amee ndax wëlbatiku nag boole ko ci ay programme ba ci wirdu wi nga xam ne moom la am bu wirdu maxuus da koo boole ci sart yee bis bu set nga jàng doon ci ñaari isib alquran la te lenn ci mag ñi wax nañ ñaari isib yooyu sax li gën mooy boo ko mënee naafila nga di ko naafila boo ko mën nga doo ko jàng boo ko mën nga doo ko jàng maa tayassara min alquran kon soo ko tungee war ko ginnaaw umpale nga lool dugg sëriñ bi umpale bi wala su fekkee seen umpale woo ko yaa ngi la neex te sëriñ bi nag boo bëggee ànd ak moom laq ngërëmam am ci moom na nga bëgg doo doxe la neex waaye ñooñu dañuy fàttali kullu muridin bi yalusu fal yudin tilawatan li xayri zikrin adrusi kon alquran murid bu ko tëngu wan nga gënoon li yoonu sëriñ bi loolu nañ ko bàyyi xel ñooñu sax ñaare léeg-léeg nga gis ñoo xam ne durus boobu ñu durus xasida yi dañuy dem ba jàppe ko daraja jàppe ko fal koo xam ne léegi jàpp nañ daal koo xam ne mën ngaa tiim xasida nii di ko jàng wala sax nga mokkal genn xasida léegi yow daal du dagan ci yow wala mu jaadu ngay dem di métier wala yenn métier wala ngay liggéey ah loolu bu baax loolu am solo la waaye nit ki day liggéey mag ñi nekkoon la sëriñ sëriñ bi bi mu soxlaa loolu mag ñi dañ daan durus di jàng alquran fees dell ak xam-xam waaye da ciy wut ay ude wut ci ay ministre wut ci ay ñawkat day fekk fees dell ak xam-xam waxtu loo téere bari loolu lu mat lu mokkal ci xasidaan yi mu di ko ñawloo mbubb wala mu di ko awloo wala mu di ko liggéeyloo am la wala mu di ko def la kon mag ñi ñoom foofu lañ nekkoon ñu demee nag ba jamono ji ñu toll ñu bëgg ko kon njàngum xasida nag def ko pal koo xam ne wërta ànd ak liggéey loolu ñu dul tele ak ñàkk a dégg ñàkk dégg ñu sëriñ bi doon nosu digganteem ak mag li ñu doon doxale am ci ñoom ñoo xam ne durus boobu ñuy durus xasida yi da leen di eggale ci ñoom dañuy considéré seen bopp jàpp ne ñoom dong nag ñoo estimé moom keneen du si te boo seetantalee da nga gis ci ñoom ci seen colin ci seen wax yi ci seen i comportement yi jëflante ci seen biir keneen ku dul ñoom nga xam ne doo am duruskat boo xam ne maanaam considéré nañ la comme comme ñoom léegi day jàpp ne yow daal maanaam ñoo si sëriñ nga xam ne ci seen lisaanu xaal dañuy wax ñoom xasida leen di teral am ci ñoom ñoo xam ne dañuy wax dañuy xaar sëriñ bi nga gis gone bu ndaw doomagul ñaar fukki at mu yor kurusam di yor xasida rawatina bu am problème nga xam ne gone yëpp moom daw yor ko su ko defee di wax ne léegi moom lañu sëriñ bi lañu xaar moo leen ko xaar fii mag ñi dañoo liggéeyal bi ba seen seen dund gépp ba sëriñ bi yeewu leen ci ay barab ñu doog a toog fafee di xaar sëriñ léegi yow ana fa féete sëriñ bi bëgg koo xaar doon gone bu ndaw toll ci war a jàng ak jàng su fekkoonte ne sëriñ bi bi mu dikkee ci noonu rek la nekkoon jàng di durus yamale ko ci boppam kon liggéey bi daal si fii te liggéey bi nag war nañoo fexe ba ñun biñ ñu ko bàyyi biñ ñu bàyyee raaya bi buñ ko mënta yëkkati mu gën a jëm kanam ñu téye ko nag ba du wàcc waaye nii ñu dundee nii dañ mel ne da koy wàcc di koy rëppee ndax du yaatu kon war nañoo weesu durus xasida ñu bëggee jàpp suñu bopp ay kilifa wala ñu jàpp ne dañoo war a toog rek xasida teral ñu wala ñu naan dañuy xaar sëriñ bi wala ñu jàpp ne waruñu liggéey yi loolu sëriñ bi séntu na ci ñu loolu benn kuréel la kuréel boobu ba tey am na ci ñoom ñoo xam ne ci durus boobu sax léeg-léeg ak waru dikkale yi waru ñu leen dikkale mooy boo demee ci al daanaka ñaari bi ñu ngi ko jàmm dañuy wax daal ñoom ñu sëriñ bi rek bu ñuy julli ñu ngi toog di jàng lu ñuy def ñu ngi toog seen i di dur seeni xasida mbooleem xel sha'air yi dañ koy woyofal ngir jàpp ne nekk nañ ci li ko gën te fekk sëriñ bi daa bëggoon nga ne ci leer ba noppi doo ko ñëw ci dur loolu na waaye bëggutoon nga ne yi loolu nag ak ñàkk a dégg sëriñ bi la ak di woote wootelu li ñuy wax ashabahat suufiya di woote maanaam ay xeeti aal ak ay tolluwaay yoo xam ne dañ koy woote waaye dul ne ci ñoom loola ñam ne ci ñoom ñam ne ci ñoom ku ñu leen jàkk xam mag ñam nekkoon ci ñoom dawuñ ko wane ci bañ jaamu yàlla dañ daan jaamu yàlla waaye ñu ko daan wane ci bu ñu jegee kuy jàng xasida ñu yëg ci loo xam ne moo leen di tàqale seen sago ba ñu suubu ci taal ñu ko yëg wala ñu dox ci péri sàkket yi wala ci péri yi wala ñuy tàdd ci ay teen wala ñu ci kaw garab bi daanaka duñ ko yëg ñooñu foofu la seen xaal yooyu daan feeñe waaye dawul feeñe rek ci woyofal jaamu yàlla bañ jaamu rek sa borom dégg nga ne da ngay durus xasida da nga àgg ci benn ak waaye loolu moom njuumte la am ci ñoo xam ne jàpp nañu sax léegi xasida yi ñoo ko moom am na ci ñoo xam ne jàpp nañu xasida yi ñoo ko moom di ci nekk ni yoo xam ne ak di ko saytoo noo xam ne ba jàpp ne keneen daal wut xam dara ci xasida yi wuru ci am benn cër te fekk na xasida yi alali Sëriñ Touba jullit ñëpp ko bokk kenn moom ko jullit ñëpp ko bokk ñooñu nag yeete bi ma am wala laaj bi ma am sama digganteeg ñoom mooy boo demee ci téeréb Serigne Mouhamadou Mourtada boobu ma ngi fay leeral lu am solo di wax ne li ëpp ci xaside Serigne Touba yi daf koo def ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom waaye daf koo def di def tawassul ci saxaaba yi ak ahlul bayt am ci yeneen xaaj yoo xam ne daf ko def ci ulum sharia ak al arabia nga xam ne sharia lay jàngale ak làkku arab mu mel ne kon man xalaat bi ma ci am mooy jàngum xasida dama koo jox wàccuwaayu jàngum alquran ci naka wàccuwaay bi li ma jublu ci wàccuwaay bi mooy alquran ngir mu amal la njëriñ dëgg-dëgg mooy nga di ko jàng di def tadabburul maani la mu digle nga def la mu tere nga bàyyi loolu mooy dëgg-dëgg solos alquran ibnu mas'ud mosoon na ko wax ne woon na ñun kat ak sahaaba ridwanullahi alayhim ajmain ku ci jàng ku ci aaya doo ko romb lu dul ne lii am na ci seetantal nga maanaa yi dégg ko di jëfe ndigal ya di bàyyi tere doo ko wees man xasida yi wàcc waaye boobu daa ko jàpp naa ni ci toog di ko durus am na ku ko ci ëppale mooy ki nga xam ne fexe na ba xam ni muy wax ci maanaam zahir nii ñooñu sax ñoom dañ nangu yi ndax dañ naan xasida yi kenn xamul lu mu firi sëriñ rek ko xam waaye sëriñ boobu ci arabee la ko wax ci zahir rek doon la tëralal ay mag di leen jàngal mag ñooñu di jàngal ñeneen ba mag suñu ñuy jàngalante ba nga xam ne dañuy fab si sixaar di ko tëral di ko jàng war koo mën a jëfe naka noonu am na ci xasida yi yoo xam ne ay ay wasaaya da nga xam ni sëriñ bi bëgg a wax ci zahir nga fab ko jëfe ko jàpp naa ni mu ëpp solo moom la sëriñ bi gënoon a bëgg ci yow nga tiim ko di ko jàng nii rek mu jeex te xamoo ci benn baat lu ci jàpp naa ne kooku moo ëppale ki nga xam ne dul rek la ñooñu benn kuréel lañ boo xam ne ñu ngi dund tey tey ci kaw suuf di ay murid yoo xam ne mënuñu leen a génn ci yoon wi waaye nag ñi ngi dox ci doxin boo xam ne li sëriñ bi doon séntu ci ñoom la mu bëggoon ci ñoom ëpp na mos lii nga xam ne ci lañ am na nag kuréel boo xam ne moom mën nañ leen a yëgal seeni sëriñ bi yaroon ndax ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy boole jàng alquran ak xasida dañuy dem ci dañuy dañuy yóbbu suñu njaboot ci daara ji ñu jàngi alquran ba wattu buñ fa jógee di jàng alquran bi su sët di durus xasida yi di jàng xam boo la ko xidma bi sëriñ bi digle woon ñu ne ca di liggéey sëriñ bi jamono ju nekk waaye nag nga xam ne dañuy jiitaloon xam njëkk ñuy jëf ni ko sëriñ bi diglee woon ngir ragal ci asare faqaddimu ta'alluman ala ñooñu ñooy ñi xam ne mbindeefum yàlla mu gis jox ko war ma ñooñu ñooy ñi nga xam ne duñ génn mukk ci seen làmmiñ baat ñaaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne jamono ju nekk dañuy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla ñooñu ñooy ñi nga xam ne jamono ji nekk dañuy soppante ngir jëm yàlla ngir sëriñ bi ñu bokk ñooñu ñooy ñi nga xam ne jamono ji nekk dañuy wóolante ñooñu ñooy ñi nga xam ne du ñu gis mukk nit ki mu génn ci làmmiñam baati seere yi ñuy noonu ci ak moom ngir jëfe ndigalu sëriñ wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah fi ne boo demee ci duruskat bi ki nga xam ne daa jàpp ne moom mooy duruskat bi ku dul ab murid ñaari du la mën a xajal day xatal lool lool lool mbirum sëriñ bi te li sëriñ bi digle mooy wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ñooñu ñooñu nga xam ne dañoo am jàppali jikko lambo ay teggin di ay muñkat di ay santkat seen borom di gërëm loo dogalub yàlla wala boog dëddu adduna ci seen xol nag boole ko ragal yàlla bu mu ci ak ragal wala yaakaar yàlla ñooy ñi nga xam ne seen jikko seen jikko boo demee ci masaliku dina teg ko muy attaxalli an rasail wa wattahalli bil fadail ñooñu ñooñu nga xam ne seen comportement boo demee ci xoqal lu ko fekk ko waaye ñooñu ñooñu nga xam ne seen mandarga boo demee ci maxaju fadail xaj fekk ko ñooñu man ñu a al alfirqatu naajiya ñooñu mën nañ leen yéegal ca saadiq yu njëkk yi li sëriñ bëggoon lépp ña ngi ci wooye ko leen dara lislaam ñi ngi jàng alquran kenn dopp leen dur su bare waaye nag ña ngay xam na xasida yi di wax ci zahir la sëriñ bi di ca joxal ñu ko def am ci nag ñoo xam ne duñ ñii duñ ñëw daanaka mën na leen a bañ a jàpp ñu aju sëriñ bi dañuy tongu alquran dañuy tongu jàngum xam-xam dañuy tongu xasida yi lan yu ñaaw la ñuy yor duñ nangoo liggéey seen métier mooy cob nekk ci kër service bi cob dañuy wax ci booru loolu rek mooy doon xam lenn xarab duñ féete fenn sëriñ te nag loolu moo bari lool guddi yi ñu toog li ñu woowee xam ne boo demee ci kër sëriñ si léegi moo ko fees dell bu sëriñ bi jógee mbooloo koy moo xam ne ay jaahil lañ par rapport ak mbooloo mi doon tax Seexul Xadiim xam wenn xarab ci alquran duñ ko xam ci xasida duñ nangoo liggéey luñ jekku sàcc te gëmuñ sëriñ bi lu ñu am lañ bëgg waaye buñ ko wanee ginnaaw di yàqat def buñ toogee ci moom it nag di ngañ ñi ay moromam bu fekkee sëriñ boobee bokk ci benn kuréel ci kuréel yi a waxtaane ci kuréel sëriñ si loola moom mën na caa wooru di leen diglu te fekk moom it buñ ko wanee ginnaaw dem ci keneen noonu rek lañ def ci moom am na ci ñoo xam ne sax seenu caay tey àgg na ci biir kër soo su ñu nekk soxna si bu buñ ca mënee àgg àgg ci wallaahi asim wallaahi asim loolu mi man damay jàpp ne ñoom xëy na mën nañoo ak seen bopp sëriñ bi waaye ndax aju na ci lu mat a lu mat a bàyyi xel kuréel boobu lu ma ci sori ñëpp xam nañ leen ñëpp xam ne leen ñoom xam nañ seen bopp nañ jàngi alxuraan jàngi xam-xam jéem a fonk yi di jëfe ndigalam a joxal sëriñ bi gëddam jéem a xamaat fan la sëriñ bi tabaxoon yoon wi ñu jéem a dox ci loole loolu moo ëpp solo ci ñoom lii ñu bëgg dund jamono yi ñu toll bu di ñuy toll kuréel yooyu duñu liggéey moom daal kii man lenn luy jox ñu sëriñ bi loo xam ne dañ ci tënk du am te nag lépp ci ñoom tere suñu ñoom ay tuxkat la ñu ay naankati sàngara la ñu doon seen yi ñaaw yooyu yi seen bopp ñu ne ñoo yor protocole yi di leen favoriser loolu danaa ci ñëw ci beneen xaaj waye fofu mom ci lay yam ak ñoo ñu xamni ñom lañu woyé ñom lañu woyé suyux ñom lañu woyé talibi bu dé yi nga xamni ne yiss suñu defé talibi yi ñetti xaaj kon faaw ñu suñu fi ñetti waye waaye ñetti yoyu day delu wat ci la soxna añu tebu su la ko Cheikhul Khadim waxoon ne ko man de dima woté wootee ñett ma wuusi ndax damaa woote am ñoo xam ne dañoo dégg kàddu gi daal di fëx jawal ci comme bàyyi ko daw ba ak ci man ma wax ñoom ñu dégg la ma leen digal ñu def la ma leen tere ñu bàyyi ñooñu ñooy ay mooy kuréel bi ma doon wax léegi nee na am ci kuréel boo xam ne dañoo dégg kàddu gi daal di fëx wut ci fa mu bàyyi ko ñëw ba ci yoon ñu toog mën a fi mu mooy juus kër yi ma doon wax léegi ñu ma doon ñu ma doon wax léegi nga xam ne dafa am fuñ nekk fu bokkut foo xam ne daal yées na ci leen sëriñ bi dul sëriñ léegi gone yëpp dañoo daw jëm foofu moo tax tomb la bu mbat wax gone yëpp daw nañ jëm foofu jàpp foofu rek mooy mbir ma lu am solo la la ñuy def daw waaye nag xamal la njëkk a ko doog foofu lañ bëgg a waxee bu dañoo ñaawlu lañ nekkee déedéet dafa am lu ca loolu lañ bëgg ñu dolli ko ci na beneen kuréel bi bi ma wootee di dégg kàddu bi dañoo foofu di daw di wéy jaar ci kii ñu leen ëyu waaye ñuy daw rek lan bañ a ges loolu kuréel gii mu mujj wax léegi ci leen ci murid yi te ñooñu lañ ñoom dañoo dañoo màmm daw nag topp wuti fa seen bakkan màmm jël bi di leen ëyu bëgg leen a boole ci mbooloom waaye noonu nag la ñu nga xam ne ñoom la ñu wooyee sëriñ ñetti xaaj ndax da ci am ñoo xam ne ñu leen ko wooyee te doonuñu moo tax ñu jëfandikoo baatu ñu ñuy wooyee ay sëriñ ndax bu ñu ne woon sëriñ si rek ko ñëpp ay sëriñ lañu waaye ñi ñuy wooye ay sëriñ ñetti xaar ñu ko def amna ko xamné d'accord nañ ak mom ci ne ab sëriñ mi ngi am ba légui tay ci ñi sagal sëriñ yo la bokk moy borom xam-xam yi nga xamné dañuy jëf ci xam-xam diko ko sellal dëddu adduna ci ñi xol di lay biire talibé yi te dëkkal ba taxé suñu borom fekk ni lolu sëriñ bi ñaanoon ci man la bi si واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين الزاهدين واجعل جميع الزاهدين الناصرين واجعل جميع الناصرين الصالحين واجعل جميع الصادقين الفائزين am na ñoo xam ne foofu la ñu ñooñu mën nañ leen a jàppee ay sëriñ ñooñu dañuy woon ni dinañ teg ci yoon wu leen di tax a mucc te yoon wooye mooy jaamu yàlla wiital ko te lépp lu ñu jox ñu ngërëmul yàlla nga ci nga fexe ba kenn du la ci mag ñooñu daañu jëriñ seen bopp jëriñ seenu askan adduna ak àllaaxira ñooñu ñooñu nga xam ne jamono bu nekk ñi ngi roy njàngale Sayxul Xadiim nim tënk ko ci alquran ak sunna ñooñu ñooñu nga xam ne jamono bi nekk ñi ngi wattu atte sharia yi ñooñu ñi nga xam ne jamono bi nekk seen baatin ak seen zaahir benn la ñooñu ñi nga xam ne suñu waxee wala ñu jëf moo leen la ci alquran fekk ko fa mu leer ñooñu ñooñu nga xam ne dañoo topp liggéey Serigne Touba yi irshada yi ma doon def bi Serigne bi joxañee alquran ñoom ñu jàng ba ñëw di jàng samp ay daara di jàngale alquran bañ demee ba mënatuñ ko ñu wut ay nit ñoo xam ne dañ leen faa teg ñuy jàngale benn ñu doon seen i taalibe wala ñu jël sax koo xam ne day jàngale ñu di ko fay te duñ ko amee benn ba noppi nag jox alquran wàccuwaayam jox nañu alquran wàccuwaayam noonu lañ tënk ko ci sunna ñooñu noonu lañ fexe ak xam-xam waaye dañ leen fekk ñu leen ay jaamu ko ci yàlla boole ko bu ñuy wax ma ci yoon bi muy lépp loo xam ne looy liggéeyal sa mbokkum jullit dañ cee sax dañ cee pay bu yàlla jamono ju nekk ñett nga xam ne li sëriñ bi dénkaane ma ci ay teggin dafa fees dell ci ñoom ñooy ñi nga xam ne li sëriñ bi doon dénkaane ci benn jullit ñi ca li sëriñ bi doon dénkaane ci jàmm ña ca ñooñu buñ ma ci doon joxe woon misaal ne ma tegal ñu kenn ci suñu kanam ne kii kat ci ñooñu la wallahi alasim ak fu ñu ma ko mën a laajee ci kaw suuf sëriñ Abdourahmane lay jël moom lay jël joxe ci misaal ñooñu ay sëriñ lañ ay sëriñ lañ dañ la war mukk seen bopp te mbooleen lu ñu wax ne sëriñ lañ ko doon jàngale nekk maanaam di ko jàngale ak di ko jëfe nag la mu nekk seen biir nekk seen bitti ñooñu ñooy kuréel bi nga xam ne ñooy dem ñooy doon suñu sëriñ bi secret sëriñ bi ñooñu ñoo koy doon ñooñu ñooy ñi xam ne ñooy doon xaalu sëriñ bi lu tax ñooñu duñ ci am te sëriñ bi ñaanoon na ko boromam boromam may ko ko bu rëyatam tayyibatan tujaddidu nahja nabi bi suba te texe kon faw bi suñu borom dana ko may ay benn benn yoo xam ne ci loolu la ñuy benn benn yooyu man tuddal naa la kenn mën naa am nag sam xel di wër ñeneen mu bëgg laa tëj waaye su boobaa xëy na nattukaay bi nga am ci di wër ñooñu mooy nattukaay bu dul noonu ndax mën naa am nga di ko wër ci benn barab wala ci benn gox te fekk ñooñu mën nañu ne fu ne ndax sëriñ bi bul fàtte wala nga umpule wala nga réere yi dafa am lu ñuy wax awlaadul qalbi ak awlaadul sulbi wa waladul sulbi yarisul maal wa waladul qalbi yaribul xaal dafa am koo xam ne la sëtam la ci walu askan ci wàllu deret kooku de mom bu bu dee doon bu de alal mom kenn mënu ko ci dor am ko xamne nak wala du qalb la manam day doon sëriñ bi ci wàllu ruux kooku moy don sirru sëriñ bi don secret fi nafsil waxtu nak ki nga xamne domam la wala sëtam la ci walu askan man na donati nak wala du qalb waye nak amna ko xamne mom lu doomam du sëtam ci wàllu askan waaye ci wàllu ruumam doomam la mën naa doon secret sëriñ kon boo bëggee gëstu ñooñu da koy wër fu waaye bu ko tënk fenn da koy wër bi wax ci masaalik dana dëggal lii ma ci ab tënk ko ci askan wala nga tënk ko ci sant wala nga tënk ko ci comportement wala situation da ngay juum ndax serigne bi wax na ba tay ni wa rubbama istaqbaxta shi'l al abdi wa innahu qad xaasa kull al mayt la la gis nit kawam ñak solo wala ak jidom wala sam dëkk wala lam sant te neena luy tedd ngam ñi ngi xex ci ma bañ xex tax mu ne la tasbiri al abda li qubhi al malbas maa taxaddudin wa qusri daras ba gis nit ki mu doon koo xam ne fonk tub coow rek lu mu sol day xotteeku ci nim da nga takk fa ndóoy nga ni ki amul solo isrub basika xabdulil xadim tala nuuran wa sirran ilayhi xamaa nee na bari waa na ko mel noonu te fekk dafa fees dell ak ay leer ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala teew nag am na ñu jël loolu sëriñ bi wax loolu sëriñ bi wax ne bul gis ku mel rek nga di ko xeer am surux surux surux ndool la foofu fab loolu nag dégg nga di ay comportement yoo xam yoo xam ne ak fiir la daañu ci agsi ci bu na ñii am na nag ñoo xam ne du ma ne du ma ay sëriñ waaye ñoom it la daloon ñëlee nga xam ne la sëriñ bi doon séntu ci ñoom ëpp na liñ nekkee am na kuréel boo xam ne foofu lañ man mën nañu leen wooye ay sëriñ ndax léeg-léeg bu gis ñoom luy tekkale ak sëriñ waaye nag melokaan yi ñu amee comportement yi yées nañu sëriñ doon sëriñ ci ñoom ak li mu xaar ci ñoom ñooñu mooy ñi nga xam ne seen yoon ci alquran am na sëriñ yoo xam ne faale wuñu alquran faale wuñu daal alquran am na léeg-léeg sax nga gis ku jël jàngale ko def alquran du ko fay man ni ñu waxee jaar naa ci te gis naa ci ñeneen ñi jàng ñu ñi gën a am daraja li ci ëpp ñoo gën a respecté yi maanaam fayal alquran léeg-léeg ñu wax la ci jëmm joo xam ne sa loxo day laal si génn day jël jàngalekat alquran bu weer ne mu laaj ko fay dama la waaye ñu ak waaye fan alquran duñ samp ay daara la ko waral nag mooy xëy na dañoo jàpp ne jàngalekat alquran ñoom gis nañ ñoom liñ yor ñoom ci seen gis-gis pouvoir la boo xam ne jàngalekat alquran yi ñooy seen ñooy ñooy leen di opposé pour ñoom loolu lay gis kon mu mel ne bu alxuraan ak xam-xam gën a jëm kanam lañ yor day rëppee waaye ñoom bu ñu delluwaatoon ci sëriñ bi ña ko daroon kay xam bu ñu melee nañu war a mel lu nit gën a jàng gën a géeju gën leen a gëm gën a topp ci mer sa bopp waaye bu yedd keneen seeraatal sa bopp ñaare ñooñu duñ fonk alxuraan duñ fonk ñeneen duñ fonk xam-xam duñ fonk ñeneen buñ gisee sax maanaam duñ góorgóorlu ci xam-xam ngir ñu bëgg koo reetaan dañu ko arabisant wala ñu def ustaas maanaam gis nga ko woon daal yow doo murit maanaam ñaar loolu ku ñu ko wax rek saaga nañ la saaga bu bon bu ne la arrangement boole ne la oustaz démb rek am na ko ma ko wax ci Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol ju may suñu suuf bi ma waxtaan ba noppi fekk ñu waxtaan ci al aada fi taalim Cheikh al Xadim xam naa dama xam da caa gis bopp bopp moom nit ma génn mu kalma ne ma oustaz waxtaan bi am na solo xam nañ jubluwaay yi bu baax a baax dañ lay bëgg a féetale fenn rek ngir arrangé wu ne li ñuy wax xidma duñ ko taxaw lañ ci war tax taxaw li ñuy wax al adab bi sàmmonte moom ñooñu teg ñi suñu tuba doon jàngale ci ñoo li nga xam ne ko jàng ñoom fi ni lamb làmboog moom ñaare la tax di làmboog mom buñ doon dugg ci mbolo tay lu mbolo mi bari bari seen dal lañu sol ñu fekk mbolo mi tok ci kaw fasa gi ñu jàng càg dal léegi mom ñu fekk mbolo mi yor ñu gën nit ñi waaye duñ faale wala ci jaar seen dal mbolo mi tok di jàng alquran di jaar ci biir puus ak seen dal ay waji ji di sàmmonte nag teg nga xamni mom la suñu tuba daan jàngal mag ñi Serigne Salih mësta jur basari ci sundul ay daanam jàll léeg-léeg nga gis ci ñoom koo xam ne jënd naa basam waaye bu ñu fekk ñu toog toog ci kaw ay mat laa daal lay cëre jaarale foo ko wàññi bu dee ab sëriñ am na lu manqué ci moom am na lu manqué ci moom mooy ñi nga xam ne léeg-léeg seen kaw mën naa rafet loolu ay biir gën a day xaw a day waar xaw ngaa doy waar mooy bu ñu waxee wala ñu jëf sa loxo dara sa gémmiñ wala ngay bëgg xotti suuf si nga tàcc la ko war a mooy dañoo amatul yóbbal ci xam-xam ña xam lañu war a xam jëf lañu war a jëf doo leen dégg coow yi adduna yi ngay réew mu lëj mii coow yi bari yi xew di xew doo ci dégg mukk am na ñoo xam ne bi seen nga dégg leen ñu yëkkati seen i kàddu di wax muy tebbee ñuy dog muy tebbee dégg ñuy wax lu ñaaw gaa ñu dinañ ko delloo ñuy def lu ñaaw gaa ñi dinañ ko def yaa ngi koy dégg mu bari lool waaye ñañ ca yar jàngal leen alquran jàngal leen xam-xam xamal leen sëriñ bi ñu di ko dundee noonu loola dana dee di set nga dégg ku ci wax mu day mu jëf nga am kers la lay rusloo yow mooy li ne moom am murid la dañ kii kilifa la ba nag ji bu tebbee ko ci kanam adduna bépp wala jëfam ji di jëf joo xam ne ñëpp xam nañu ne islam daf ko ñaaw ko sëriñ bi daf ko ñaaw loolu moo lay rusloo ñooñu mooy ñi nga xam ne li ñuy wax ëdëb muy teg yi waxuma la ñoom lañ manqué waaye dañ koy rey dañuy rey ay teg yi waxoon naa ko léegi ana ñu koy rey dañuy favoriser ku ñàkk ci teg yi waaye fan borom yi teg yi ndax lépp ci ñi ma bëgg a wax nii muy kuréelu ñaareel bi maanaam seen digganteeg taalibe yi dañoo mel ne ko yorub radu di rab lépp lu ñëw rek amatoo ci sox ci radu nii ci sox lu xas ñëw faaleetu ko la fa def kay lay jéem a xëcc ba xam lu ko téye ñoom nag bépp murit bu ñëw sukk jaayante wane ak mbokk teggin amatuñ ci yow soxla du la jox benn war ma duñ la considéré waaye ci ne dungu fële faale faalewu leen su tas ak ñoom seg leen ñu wax set sa mbaxanaam du leen faale du leen sujjootal du leen warmaal bu ñu waxe muy yëkkati kàddoom bu ñu toogee ca kaw mu toog ca kaw jamono ñu ne dañ koy kapp kappal di ko woo di ko nawloon teeg moom di bokk moom lekk di kii xaalis di ko jox su ko defee loolu day rey ay ceeb yi naka la koy rey gone bii doogu jub gis na kii kër ku mokk la ku baax la teguñ ko fenn kii kër ku ñàkk teggin la ku war maan nañ ko li mu bëggoon lépp am na ko day jàpp ne moo yóbbu mun faq foofu la jëm de bu jugee bëgg ambalaan amu ko foofa lay jaar rek ci yoonu ñàkk ceeb bu defee ñu naan gone yi léegi dañoo jàng ñoom ñu koy wax ñoo ñoo suuxat jàng boobu ci gone yi ndax buñu gisee ku leen ñàkk teggin ñàkk leen war nañ koy boolee ci seen bopp waaye murid bi nga xam ne dafa am teggin am war ma moo gën a bëgg loolu ndax moom leneen ak initié wu dul alal boo ko taxee ci sa bopp day am leneen lu muy yëg day am lu muy suuxat ci moom dafa fab nag saay saay bi nga xam ne kenn ci ci dara jëm ak tey lan ne mu ñaaw la yokk di yàqu der nga fab ko ci sa bopp yow ngir lan ngir rek bëgg mu jox la war bëgg mu jox la war am na ci ñoo xam ne sax dégg naa lay la ñuy jënd ci nit maanaam ab cër ñii maanaam cër boo leen war a jox lay la ñu jënd ko ci yow ñu ne la bu ñu tasee barab sàngam nga summi seen nga summi seen baxan rek su jootal leen loolu dafa am prime bu ñu la ci war jox ci biir mbooloo ndax yow ku jàcc nga koo xam ne séddoo kenn fenn waaye ñu ne ah moom kat dana war maa ji loolu ñun pouvoir boo xam ne dañ ko jëli loolu nag bu dee yaatu bi dox leen dañu jàpp ne loolu moo di aw yoon ku ci bëgg liggéey amoo ko nga bëgg alal amoo ko da nga naan naa jaar ci sëriñ si su ko defee contre xam-xam daal dikk bañ ko daal dikk waaye di ko aaye daal te ñooñu ñaare li ma wax léegi képp kuñ xas tudd ci moom baaxul ab tay duñu ko joxati wax soo ñëwee doon ko rek nga nuyoo ko ne ko sama mbokk la sama sama xarit la nangam nuyoo ko ne moom du murit nga gis mu jox ko war ma ci mag dëgg la sëriñ bi daana dafi daan noonu mbokki diine yi nga xam ne bokkuñ tay waaye nga ànd ak mag moo war na ko mat waajur wex tan bi jaaw dundam gépp mu jeexal ko dina géer sëriñ bi wala sax mu àndoon ak bu dikkee duñ ko jox benn xiima ngir ne rek ab taalibe ab taalibe dañ ko wara jox war dafa am ñu wara a ci ak moom ñooñu day melni ni ñu gise ñoom mooy dañoo jàppe seen bopp ay buur ay buur lañ jàpp seen bopp sëriñ bi nag nee woon na bu ngeen demee ba jàpp ay buur taalib yi jàpp leen jàpp seen bopp ñoom it ay dakk taalib am na ci ñoom ñooñ ñoo xam ne daañ tabax ay daara alquran sax dëgg wala ñu tabax ay jàkk ci kër waaye loolu lépp dañ ci wut ak ngëm rek waaye yàlla taxut te la lay xamal ne yàlla taxut mooy lay xew ci daara ak bu dee daara ja ña fay jàng jàng ma du baax kay jàng duñ ko faale duñ ko jox war ma ak ja duñ ko ko jox seen yoon du ja nekk moom daal am naa daara ñu jël dem Europe di xam ne naa daara wala ñu dem xam ne ne am naa daara mu doon procès ci ñoom jàkka ji ku ñu fekk ci kër gi jàkk nga ne ah si biir kër am islam la maanaam suñ ngëmu doolee ko si moom waaye yàlla tax loolu bari na bari na ci mu jógee fii moom bu ko yàlla dogalee problème bu mag daan fi am waaye <laughs> ñooñu li gën a bari li sëriñ bi daan wax bu mu suura dañuy bëgg loolu ak siiw adduna bépp xam leen fu ñu fekk dañuy bëgg ràññee bëgg daraja nga xam ne loolu loo leen jox du leen rek loo leen ci jox du xam ne kon day mel ni dañuy dund ci diine di dund ci tarixa bi waaye dund luñ diine dund luñ tarixa bi te nag bëgg adduna googu ak daraja googu ak ciwte googu amul solo li am solo mooy nga fexe ba li lay dundal nga koy dundal ñoom diine leen fal liggéey sëriñ bi leen fal nañ dundal diine te dundal liggéey sëriñ bi ñooñu nag su fekkente ni ñii la seen biir demee ah sëriñ bi ne woon charul war alladina yaqsuuna bi diini am wala suma yaquluuna ñee si nit ñi kat mooy ñuy jël ci alal ci diine di ko lekk maanaam jël alal ci tur diine ba noppi maanaam na nga ko wara nga wara dundale ci dundale wono la diine nga wara dundale la la may alal jojje ci biir diine dundale woko nono lolu ba tay lu ma tabaay xel mu mel ni bobu fi fii ne kurel bu digg doomu la ñooñu ñoo wax ne du ñu ay sëriñ waaye daa am may mooy taxawaay ñu waroon taxaw duñ ko taxaw ñi ma wu tuddu tudd léegi nañ ñooy sëriñ ñii di ñëw nag moom la ñu wooyee باتي ناكو جيفلو كي المحركون محركون اي هم ديو اي ينجل كات مو فيه دال نك ادنا اي ينجل كات بس دال دال دال ريو سي ньоญو لاي تيجي سي سيري اي ينجل كات ني دي واي ياكار نا خام نكو باخو ньоญو امي سوخلا مون سي خام سيري نيت تا لول مو ورونا جيت سي ньоญ كوم كو دانيو واخ دانيو ووت te serigne bi wax ne kii woote tañu war koo topp mooy ki boole am xam-xam fiq wa man li fiqhi wa tasawuf fil jamaa fa huwa alladi huqqa lahu an yutaba képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu nga xam ne léegi yaa ngi topp ak sëriñ te nga xam ne ci biir liggéeyu sëriñ Tuubaa bi nga ko toppee delluwaatal nafaram njàngaleem sëriñ bii nee na kii war a topp mooy ki boole xam-xamu fiq am ak xam-xamu tasawuf léegi bu dee sa sëriñ xamul dara ci fiq ba nga reconnaître na ko xamu ci dara tasawuf kasaalika boo ko toppee waru nga sëriñ bi nee na kii lañu war a topp te moom sax balaa woon a jub di wote mom dafa waral defar bopam ba noppi doo ko mën a defaree te pour mu defar bopam dafa bokk ci sant yoyé defar ruuxam ak tabaxur fi ayni shariati wa tabaxur fi ayni haqiqati mu tàggat bakkanam nag tàggat ruuxam dal ci ag way ba doo ko woote nag di jaaree ñi ci yoon woowee sëriñ min min ha fi ayni shariati ma ayni haqiqati min qabli riyadat léegi koo xam ne moom tàggatul moom maanaam amul compétition mom mom ci jëmmi bopam bu duggoon ci géew ci def ci ba noppi ne kaay leen ma yóbbu leen kooku mën ta tàggat kenn kon nak ñi nga xamne dañuy wote dama bari lool da buma ne wote kat yi man nga ja fekk ku sant mbàcc man nga ja fekk ku sant buso man nga ja fekk ku sant faal man nga ja fekk ku sant jaxate sant yépp mën naa tàgg ci biir waaye nak del natt ci nattukaay sëriñ bi yaa nattukaay sëriñ bi kum ci mën a doon jël ci natt géeju ci sharia géeju ci xadis sëriñ bi nee na mooy tax mu àgg mën a àgg mooy tax ñu war ko mën a topp bu nekkul ci moom kenn waru ko topp ak koo mën a doon ñooñu nag ñaare duñ am ay possibilité matériel bu ñu war a am te mooy géeju ci sharia ak xaqiqa duñ ko am te léegi nag li ñu wax ne faaqidu shay'in laa yu'ti moom li la bëgg a jox amu ko su la woo bukki bañ ne ko indi ñu am nay daal see ko amul dara muy ñu ne ko bukki kii daa amul mu ne ah luy nay ñu ne ko nay mooy ku dul joxe mu ne laaj leen ko rek ba xam na a joxe laaj leen ko rek waaye ñu dara bukki moom yoon nekku ci yor na nay mooy ku dul joxe mu ne laaj leen ko rek ba xam na joxe ñoom liñ bëgg a joxe amuñ ko yow nga ñëw topp leen te amuñ liñ war liñ la war a joxe ñooñu ay matérialiste ne ay maddiyu na ne ñooñu la suñu borom dana wax ci alhaakum takaabu loolu mooy seen mbir ëpplante alal waaye dañuy istixfaaf sha'air diine dañuy woyofal màndarga diine nañ koy woyofale mooy dañuy am waru bu mag boo xam ne dañuy jéem a justifier ak di lay naan sëriñ bi rammum sëriñ bi doole sëriñ bi yërmande sëriñ bi matali na nekk sëriñ bi yàlla képp ko ñor yàlla képp ko yittee te yàlla kat ba ñu ne yërmande yaatu na dana fa sa aktubuha nag lilladina yattaquun li mu di jëfee samay digal bàyyi samay tere ñooñu laa ko mbakkar fekk na bi li man mën lépp daan ñu ko mbakkar fekk lu ñor yàlla rek ko ñor la leen ñor ñooñu ñooy nga xam ne dañuy risqué di dëjërle ci di njëméerlu ci lu neexul yàlla jamono bi nekk di togg ay bakkaar ñoom ñi leen topp ci forme yu bari taw wuute mooy jaxase góor ñu jigéen ñi ñu caaxaan dugg ci ron tànt yi di fecc yor ay fiil di woy di fecci ñii di naan sàngara ñii di tux ñii ne ca leneen mu mel ne contexte historique bi nga xam ne moom la sëriñ bi dikkoo ci jamono bëggoon fee jëlee loolu moom lañ bëgg a dellu si waat la sëriñ Moussa ko waxoon ni góor ak jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb yi góor sabar yëpp jaaxaan kenn amatul xasdu li wacci leehi daa ngi di koy fab bi jaani leehi mu mel ne loolu dañ ko bëgg a delloo si wàlla ci biir liggéey te loolu moo taxoon suñu ñoom bi jëlee nga xam ne li nga leen di ràññee mooy li ñuy wax mudminul xam dañuy kuru nit ci naan sàngara foo leen fekk ñu ngi tux loolu moo di seen mbir lu nekk seen bakkan ñu bi du leen ko aaye ndax man cee ànd ak ngir bëgg mbooloo joxe li gën a bari ci ñoom nag seenu fés boo demee ci média bi da nga leen ci fekk ñii dañuy xuus ci domaine politique di wax muy dañ di di xasante di ŋàññante ba noppi nag di wut mbooloo boole ci ñenn ñi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo xooli yoon yi mu xat ñu jaar ci yoonu dañu wax la sira di wote ay mamam di wote ak ñaan mëna ñaan télévision yi del seetaan yi nga kër yi ci bari la ngay ñaan kan dañu leen di dalal tawat dina ci ko suñu ñu mëna mën ko fay amna ci kuñu jappal mu jaay am ba am ci ñoom ñoo xam ne muy muy ñiy woote ak ñi nga xam ne dañuy wax ne dañuy ñaan ak ñi nga xam ne dañuy wax ne ay seex lañu li gën a bari ci ñoom nag ñu tuumal lenn ci sëriñ su mag si di leen waxal lu dul dëgg ay tuuma yoo xam ne bu leen ko yàlla bu leen ko yàlla mu xaasaba du baax ci sëriñ si gën a am problème nag wala boog sëriñ si ci gën a mën a tuumaal mooy ñett ñi sëriñ Saliou radiyallahu anhu ñii woote ñu ngi koy tuumaal ñii am leen seexal am na jigéen ji nekk Ndakaar nee na seexu sëriñ Saliou la moo ko seexal dégg lii ak ñeneen ñi fa ne bari ñaan kat da ngay gis ku ñaan ni dala ko ci télé bi mu ne man li ne ci man Serigne Saliou woo ko def ci man déggal lii am jabarkat mu soxla is leneen ñu fekk nit ci barab moom muy woote ñu laaj ko mu ne ah man Serigne Saliou woo ma yar moo def ci man li nekk ci man Serigne Saliou bi mu fiy nekk nit ñi dañ ko waxal loo xam ne adduna bépp dañu xam ne wérut ci yërmandeem jaar baa xam nga mu di leen suturaal ne cell ko ci olam ñam yàlla ko bindee kon bu demee ba gisatuñ ko ku koy waxal bu jaaxal ñu ko xam waaye nañ bàyyi sëriñ boobu bii ñu jàpp di ko waxal lu dul dëgg ci seen jabar yooyu ñuy def ak naan moo leen yar di wax lu dul dëgg ak seen woote yooyu ñuy woote nga gis koo xam ne aw làmmiñam leeru xamul dara ba dara booloo mu ne sëñ bi sëñ ba dem rek seetaan naa ko tele ñu wër ko muy fecc koo xam ne dañ ko topp nii fii ñu di daal ñu wër ko muy fecc ñu ne Cheikh Sëriñ Salim la moom kere laa ko sa gis barki dem rek laa ko seetaan ci télé ñoo ñii ne nañ bàyyi loolu ñu nekkee doomi Sëriñ Tuubaa du ko ñu wax lu dul dëgg am na ci ñoo xam ne dañuy dem ci promotion Cheikh Mouhamadul Fadil Sëriñ Fall li ñu wax wér ko dañuy wax wér ko Sëriñ Fall Sëriñ Fall yi koy wax dëgg yàlla ay doomam a ngi fi mag ñi moom ñi mu defaroon ñi ngi fi gis nañ niñ mel doomi Sëriñ Tuubaa jooju ko bàyyi bi jugee ne man ab murid laa man sopp Sëriñ Fall mbërum lamb mi ñëw barke Sëriñ Fall danaa la daan dégg nga waykat bi ñëw ne Serigne Fall théâtre kat bi ñëw ne Serigne Fall caaxaan kat bi daal ku ne ci caaxaan ku ne rek bala nga am na la gënal da ngaa fexe ba maanaam am loo wéer sa bopp Serigne Fall moo xam lu ko tudde sa bopp wala nga ko barabu caaxaan kaay ba wala nga wane ne man moom laa sopp ba léegi tudde nangamul Serigne Fall caaxaan yooyu dañ ko bàyyi ñooñu ku bëgg a wéer seen bopp ci ñoom da ngay am melokaan njiit ku baax dañuy leen ci yooyu bokku ci keneen ki mooy maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam foofu am naa ci lu ma metti lool ndax maam Cheikh ku xam sëriñ bi xam xam ne li gën a bari ci teggini yoonu murid moo ko nga xam ne danaan defar moom man sama gis-gis man dama jàpp ne ak mbaay taal nit day bon ci àll bëgg a baax ñëw dugg ci baax ni di am jikko ju bon ñëw dugg ci bax loolu effectivement moy li am maam seex ci loolu la nekkon ci la yar ak njabootam dañuy dañ daan defar legi nak ñi nga xamne ay yëngal kat lañ pour ñu mëna jàll faaw dañ dañ ci do mam seex ni ay bay fa lañ ci amuñ ben relation ak mam seex rafan wala waatal mam seex rafan duñ leen siyaar duñ ay sëtam duñ daraam soxlu mo dara ta legi li ëpp ci ñoom dañoo gis sax léegi yow boo bëggee wax lu ñaaw wala nga bëgg koo def wala nga bëgg a wayfal ak jaamu yàlla pour nga mën a am lay woo xam ne nit ñi danañu la noppal ba duñ la jàppe loola day wax ne ah man de garaaw man ab Baay Faal demul noonu nit day daggu saago ñaaw ñu ne ah ci Baay Faal ne bi wala es wala xoolal bi ñu bëgg a jox ak Baay Faal ñu ko bëgg a jox di caaxaan jigéen ñi de waaye kii de ku Baay Faal la xoola boobu image biñ ko bëgg a jox loolu da Baye Fall buñ ko buñ ko yàq ak Baye Fall ci yoon wi la bokk buñ yàq image soo koy wër nag da ngay dem ci waa kër ko ci ñoom waaye bu leen ci ñu nii nag wala mbedd ndakaaru yii wala ci àll bii nga seet taxawaalkat yi saay-saay yi yi ñi nga xam ne amuñ métier ci àtte yoon woo nga bëgg ci àtte maam Cheikh ak waa këram doo ko àtte ko ñu bari foofu lañ su ko defee ñooñu nag nga xam ne ñoo yëngal kër yi seen kër yi léeg-léeg ndax moom dara du fa màgg loo bëgg rek màgg su ko defee ña fay màggee du mën a ña fay yaroo ña fay màggee dañu mujj doon ñoo xam ne seeni melokaan jikko yi la amee jikko yi la ñuy amee jikko yi moo ciy jiitu ñu màggee ci seeni kër ñàkk teggin moo ciy jiitu ngoy fa sariya ak sax bi atte yoon wi ca ci seeni principe ñoom principe yi ñu tëral ci ñoom ci lañu bëgg atte tarixa bi waaye di dimbalante ci ak réer waaye di dimbalante ci ak neen ak i caaxaan xotti war may yoon ñàkk yërmande ak di siiwal ak di ci saare li nga xam ne mooy ak yàqu ci biir askan bi sëriñ bi woon nee na sëriñ bi nee woon na ñoo ñuy ngeen di ak seen kàddu kàddu yi ñoram seen état ci yor ak seen col yu rafet yi ñu sol ak seen compte banque yi fees yi ak mbooloo yi leen topp ñi bari bari aduna bépp xam leen ñëpp di leen dégg ci média bi kenn du leen umpule sëriñ bi nee na wa rubba abdin qad ala inda al uyun ka annahu qutbu raha xashiya wa wasiituhu intashara fi al buldan wa huwa kal qibdi la rahba neena bari na ku mel nonu de ñëpp teg ko bët jàpp ne moy waji ta bo demé ci yàlla ak ak golo ko ko ëpp ak golo ñoy nag ñooy fii sëriñ bi ne woon na jamono ji li ci ñoom lépp ci sëriñ si ay xiir lañ wax seen melokaan yi ba melokaan yi jeex ba melokaan yi jeexee nag ñii ñoo ñuy làmb melokaan yooyu sëriñ bi doon wax léegi bi melokaan yi jeexee sëriñ bi daal di ñuy daal di attiré suñu attention ci nañu na ngeen def nag mooy bu leen def ngeen gis mu muuru rek wala mu yor kurusam wala mu yor téeréem wala mu nekk ci roqam wala muy sëgg ko sikki wala mu dem ci jàkke jàkke jëw ngeen jàppe ko waaji di leen gis su borom daal di xam ne ne bariwaa na ku mel noonu te du wàññi ndax fa laysa kullu maa taraa mu daw rek kaakan wa laysa kullu daw in xamal mu ron rek nga ne aw du cee gën loo séen muy leer nga ne weer la déedéet du cee gën sawara woo séen muy tàkk guddi nga def ne boo fa dem nga defe ne boo fa demee ñu berne la waaye du cee gën xëbb lem woo séen nga bëgg koo niróoleeg loolu yi ñuy wax garab xeetox déedéet nañ xàmmee sëriñ si melokaan yi jiitu mooy sëriñ si li ma waxoon nag moom la ñu tëj ndax waxtu bi dab nañu lii raam si ñàkk ñun ñëpp gis nañu si bi ñu ko xaajee ñetti xaaj ñu baax ñaangee ñu diggu doomu ñaang yi saay saay ñaangee ñooñu duñu ay sëriñ mooy yëngal kat taalibe bi ñu ko xaajee ñetti mu def saa def yaangee ñu mu des nag am luy raay ci ñag bi loo xam ne luy raam ci ñag bi loo xam ne ci ñun ñëpp la jëm muy sëriñ si muy tali bi léegi jàppoo ko waroon am ci seen biir dafa des rawatina guddi yi ñu toll buñ xoolee Sëriñ Tuubaa digganteem ak colonialiste yi gis nga nam tàggate woon ñam jamonoon teel imposé leen diineem nekk ca nam war a nekk ba xëy am ndam jéggal yu bàyyi ko mu jaamu boromam di yare njabootam bi ñëw doon dox ci loolu guddi yi ñu toll dafa mel ne loolu dañ koy waaj ñàkk luñ koy waaj a xañ sëriñ si nañ jàppoo waat te xam ne kat benn jenn jëmm lañ jëmm nag bu loxo bi mettee cër bépp da ko da ko war a yëg bu bët mettee jëmm jëpp war ko yëg bu tànk suñ ko defee daañu mujj ci seen i noonu ndax ñu ña jàkkaarloo wala sëriñ bi di ko xeex ba ba saa di taxaw duñ fi jub te jamono ji nekk seen pexe di gën a yees seen i jumtukaay di gën a yees seen i pas-pas di gën a yees guddi yi toll nag ku am looy ciit war ngaa ciit kon na serigne si jàppoo ta bañ a mel ne ñetti yëkk yooyu te fi wan a gaynde de ci diggaat loolu moom dama leen koy baye ñet yëkk lañ da sa ak gaynde gi ci digg àll bi xif na bëgg na leen lekk ñëme wu leen waaye fexe man ko moy takal leen ba kenn ku nekk japp bopam muy lekk par kenn ba ñu jeex ñew na ci ñaar ñi waxtaan ak ñom ray ko ñun ci dem ci kay waxtaan ak mom ray ko xonk ci ray ko weex ci ko ba mbim ci ci mom la ne ko man ba nga ray sama ñaari mbokk yi la xam ray ko sëriñ si buñ jàppoo gën a bennoo liy dal seen benn benn moroom yi ci ay catastrophe yoo xam ne mi ngi am ta ay noonu islam képp di leen ko teg loolu ci ñoom ñëpp la jib kon nañ bàyyi waat xel bu baax ana ñoom ñooy ñan te fexe ba saay saay yi nga xam ne ku leen yeb ci ñoom la te mooy yëngalkat yi fi ne ku yeb yoonu murit yëngalkat yi moo tax nga ne dañoo mel ne sëñ Abdourahmane Darou Moxti ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi leen xam kon nag sëriñ si di taalibi si di taalibi yi nañ jàppoo waat te bàyyi waat xel sëriñ bi akub liggéeyam te kenn laaj ko kennal goo xam ne du yem ci wax waaye day doon jëf jëf ci nag mooy la sëriñ bi bëggoon ñu ne ca te xam ne waxtu wuñ ci nekkee sëriñ bi nee na képp ku nekk ci moom mu nekk ci yow ndaw li ci jub xaar bi ci sa jibo loolu am mu nekk ci loolu sëriñ bi wax kon nag bu ngeen xëpp bu ngeen ger bu ñu wéetoog ñoom bu ñu leen bedd bu ñu leen tàqale nañ jàppoo muy sëriñ si di seex si di magi teel bi jàppoo ci seen biir doon def def benn dank ba képp ku leen di attaque ñi doo mën ci ñoom dara loolu daal mooy li nga xam ne ñun ñëpp gisandoo nañ ko mi ngi daan ci nekk di ñëw yàlla ñu suñu borom musal ah, jataay bi waxtu yi dab nañu foofu la ñuy taxawlu xam naa di jéglu ci kàddu yi ngi bu fit du ñàkk teggin réalité la rek bu ñu dund ñu di ko waxtaane ngir ñi xamut mën a xam ni sëriñ bi ñu la tëraloon ñi ñooy murid yi ñu ñooy sëriñ si am na ñu ne ci biir ñoo xam ne duñ ñee duñ ñii kenn xamul ñu ñu ñu bëgg ñooñe fexe ba delluwaat ci ñee ñu laa jirante ak yéen di ñaan suñu borom nag benn intérêt soxla wuñ ko ci jataay bi bu dul ngërëmu Serigne Touba te yàlla ñu ko ci yàlla defal loolu képp moo ci doon suñu bëgg ku ci gis boppam nanu jéggal yeete yu hajri lañ ci jubloon waaye jubluñ ci neneen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewa ci jataay bi wala nga teewlu waxtaan yi tey sa xol set na guy ndax am na ay xew-xew yoo xamante ne mi ngi xew ci biir murid bi te xaj na ñu baree baree bari bàyyi buñ ko xel wala buñ ko bàyyi xel tamit waxuñu ko tey jii nii juñu nga ci yu baree bari yaakaar naa ni incha allah jataay bii buñ fi jógee comportement yu baree bari dana soppeeku xam naa ne laaj yi sax. xaw naa bari waaye nag li des ci waxtu yi moo moo bariwut ba tax dañuy tànn ñaari laaj ci biir laaj yi rek su ko defee tontu ci ndax waxtu yi li des dafa bariwut ñaari laaj wala benn laaj rek lañuy tànn ci biir laaj yi su ko defee sëñ bi tontu ci ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha allah Cheikh Mokhtar lañu la ñu fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak suñu jàngat al al xijaab al shar'i yi mooy muuraay bi nga xamante ne moom la lislaam sant jigéen mu war ko muuru